téléspectateurs yi auditeurs yi ak internautes yi asalaamaaleykum daal leen ak jàmm ci seen émission Buzz Show Buzz Show ngeen koy am du lundi au euh, jeudi 10h jàpp 11h Buzz Show nag comme ni ngeen ko xamee émission la boo xam ne day waxtaane bépp actualité buy def buzz wala tout ce qui est fait divers fait de société dañ koy daal di euh, traité ci émission bii nii euh, émission bi nag à chaque fois dama ci ànd ak samay góor. Euh, muy chalet ak euh, diis laata loolu nag euh, ñu ziar kilifa kër gi le président Mbagnick Diop di ko nuyu di ko ndokkeel bu baax a baax di nuyu le DG Moustapha Diop di nuyu waa groupe promo consulting yëpp émission bi Fatima la Thialé ak Diis Diis maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw jaajëfal nañ la bu baax a baax a baax Fatima encore. Euh, joyeuse fête ah. noonu la ñuy wax euh, de femmes. Mm-hmm. ak jigéen ñëpp ñu ngi di jaajëfal. Mm-hmm. di jaajëfal njëkk suñu président directeur di ko ñaanal tawféex taysiir ndax ku la boot di daw ku mu raw yaa ko raw. Mm-hmm. yéene ko jàmm moo yéene sa bopp jàmm alaakulli aal comme noonu koy waxee. waa promo consulting Rewmi network ak suñuy auditeurs auditrices ñoom. Euh, mooy le zappeur ak euh, yeneen gars ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waa Darou Salaam Mbelelaan ak ñëpp. scotch cee connecté ci 97.5 wala canal 108 boobu ci mën a doon rek. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah Thialé waaleykum salaam euh, Thialé maa ngi lay di la ziar di. ndey euh, Fatou Fatima maa ngi lay mhm. bëggee di la ziar bu baax. Mhm. Ah, weex naa de di bëggee aussi tamit sama waa ji ah, di bëggee diis bu baax a baax a baax a baax ah, di ko ziar mais di di di profité ci occasion bi di leen souhaité xam nga comme ni ko diis waxee. xam nga fête joyeuse fête. Mhm. noonu la xam nga noonu la comme ñun suñu français bënnut joyeuse fête mi ngi leen di ñaanal yéen jigéen ñi. Mhm. mais di ñaanal profité sam di ci ñaanal sama yaay. di ko mhm. ñaanal mu gudd fan bu baax a baax a baax a baax xam nga. di ko ñaanal aussi tamit xam nga mu yàgg fi te wér xam nga. fajar nag da ngay dafa xam nga géwél la dafa bëri wax da ngay wàññi wax bi fajar teel la yow ak sama goro sama goro bu jigéen xam nga man ay goro yu géwél ak goro géwél laa am sama goro tamit mère Ndeye Ndiaye dafay di émission bi macha allah ñu ngi koy nuyu maa ngi koy xam nga moom it profité ci occasion bi mhm. di ko souhaité joyeuse fête xam nga goro bu baax la mais di ko euh, souhaité tamit sama jabar mhm. di ko ñaanal samay rakk yu jigéen ak xam nga ñoomin seen euh, euh, ak ak ak Fatima xam nga jigéen ñëpp ñi nga xam ne nii rek ay jàmbaar Mm-hmm. Euh, tey ñafe ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di macha allah am na solo dix heures euh, trois minutes euh, moo jot fii si Sodida immeuble El Hadj Mouhamadou Bara lu Mbacké mm-hmm. ñu war a fas yéene tàmbali waxtaan bi balaa loolu nag il faut ñu gërëm suñu marraine diis ak càlle mm-hmm. ndax dafa def lu rëy muy madame Diop. Tata Jatou Sané dafa ñëw nekk suñu marraine chaque fois mu ñuy jox ay teraanga démb moom fii moom vraiment teraanga foo sànni mbàtt mu tàq daal mm. mm-hmm. waaw añ nañ ba suur lekk nañ fruit naan nañ boisson naan nañ jus macha allah tata Jaatu ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan Njaay la sant yàlla guddal sa <laughs> la sant de waaw bu ko yàlla guddal sa fan euh, di ko ñaanal tamit sunu président bu baax a baax Thialé ma bàyyi la nga sànni ci kàddu ci mm-hmm. suñu marraine bi waaw ma dem Diatou ñu ngi koy mm-hmm. xam nga ñaanal moom xam nga euh, soxna su baax la mooy soxna su président ñu ngi koy ñaanal man sama fans la xam nga ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax franchement di wax que ni jigéen la aussi tam bu fekkee. liñ naan euh, góor bu mag boo gis rek. Mhm. Euh, ci ginnaawam dafa am jigéen bu mag bu nekk ci ginnaawam. Euh, franchement bu fekkee par exemple tey président Mbagnick dafa toll fi mu toll si parce que dafa am jigéen bu ko jàppale. Mhm. bu nekk si wetam. Euh, bu brave démb bu ñëwee xam nga. Mhm. njukkalee leen loolu nekk seen marraine. franchement bis bi dafay tolloo ak moom waaw dafay ala daw xam naa ne démb fii riiroon na. non bu ngeen maa invité nag yéen jigéen ñi. non non pour les femmes la c'était pour les femmes. waa léegi yéen femmes yi boo leen xewlee ñun hommes yi ñun doo leen mënoon ngeen maa whatsapp ci yàpp yeeg xam nga affaire yeeg yu baax yi ngeen kii. mais franchement <laughs> gis nga tey. Père Jean gis naa ko. <laughs> non Père Jean suñu nijaay la gis naa ko Père man gis naa Père Jean fii ah. ci kër gi. mais mu yor du sax lekkee ku de bu ndaw ku ci noir la lekkee <laughs> Père Jean maa ko seq bët bi ma ko may. moom jege nii dinañ ko simi wala. jaañe ni moom gis naa ko ah. <laughs> macha allah en tout cas ñëwuñu woon. ñoom oustaz góor xam nga am na ñoo xam ne caméra bu leen tibbee dañuy daw làqu mais amoon na ay góor ne de yëpp nag ñoom hmm, oustaz lay ñamaloog lay ñamaloog koor koor gaa ngi ñëw ñoom oustaz góor moom koor gi ma fekke woon yii hmm. hmm. <laughs> non oustaz yi ñoo jëloon ñoo jëloon raw gàddu gi oustaz yi ci ndogu ah. ci ndoga bi wala. yow Sadio mën a lekk. ay waay yow dañuy may am kulloo wasare boo. jàng boobu ay kulloo wasare boo lekk leen day naan. <laughs> waaw non suñu ustaasu kër gi moom maîtriser dañ lekk di naan dañ koo maîtriser. <laughs> ay càlle yow dinañ la boole mais gis. waaw looy wax Tata Diatou Sané ci teraange yi. waaw li ñuy wax rek maanaam ala kulli li ñëpp wax rek mooy dëgg. Mm-hmm. te dafa di ndey ji seex daal. Mm-hmm. yaatu yaatal xam nga. même bu dul dara sax boo ko gisul sax da yónnee ay félicitations. Mhm. di la wax ne la maa ngi lay bàyyi xel di la motiver gi ni mel. kooku bu defee déplacement ñëw tamit àndaat ak gars yi. Mhm. doo gis du teg mbég. parce que xam ni jigéen ju mën góor la mhm. benn. Euh, ndey ji seex la jabootee na ñëpp nag. doo dégg kenn koo xam day wax di jàmbat wala yu ni mel te bëggul dégg jàmbatu kenn. te saa su nekk na nga ko waxee. gannaaw maanaam ñaanu wayjur gànnaal tawféexu waajur gannaaw li nga xam ne moo di ngërëmut waajur mhm. waaye barke jabar tamit da ciy baax lu baax a baax ndax da ngay dégg taasukat yi bongomaan dañ koy wax mhm. ne am na ngeen koy waxee na la jik bu la jigee xaw ma lan affaire boobu ah, boobu ma neexee aawa na la jik waaw aawa bu la jigee loo yootu jot ko aawa na la jig ñaareel bu la ñaareel bu la jigee na <laughs> yow aawa rek ngay yam yow bu la wax ñaareel yow moom bu la wax ñaareel tàppale ñetteel bu la jigéen la yow ñoom benn la. ñeenteel bu la jigéen la xam nga dañuy wax ne la jigéen bu nekk. xam nga jigéen bët aaw yi nii. <laughs> xam la mooy la mooy la mooy ak ñaareel ñetteel. Uh-huh. mooy wujje. Uh-huh. amul lijje wujje fan la am. sa uh-huh. yaay mooy sa wujju. ñi sa yaay gar tombee ba dugg ci kër gi muñ. jur la. nga ñëw mu yar la. ba tey jii góor gis la bëgg la indil la këram. yow jàpp sama yaay sama wujj la waruma delluwaat ci kër gi di ko fekki. war naa mën a gar tombe ba sàlloo ngën a ma bañ ne lu yaayam def benn def na fukk. loolay wujje waaw ñaareel yi nga séqal yëf yi nag ak ñetteel yi ak ñeenteel yi. mais ñooñu la booy bul rafetal affaire bi. rafetal wujje wujje see entre wujje see entre aawo. ñaareel ñetteel ak ñeenteel yi yu ko séq. <laughs> Ah, kii bu amoon kër gi bu bu bu naay yow xamoo si dara sax. kii am nga melokaan kii mooy ñi teg seen kër amal seen non xam nga xam nga lu metti waaw da ngay gis célibataire taxaw di def def jàngal leçon de morale waaw te sëyul musul xam marié hmm. nag lu metti la ci Sénégal ah. loolu war nañ ko génne ci réew mi <laughs> <laughs> mais dafa am célibataire am sëy ba teeral <laughs> am lan sëy ba teeral ah, sëy ba teeral xam nga célibataire mooy ko ci mu dugg hmm, waaye sëy ba teeral mooy ko xam dafa sëy ba divorcé xanaa waaye xam nga nag célibataire célibataire la déedéet déedéet déedéet célibataire moom célibataire la moom fu mu ne nii boo nekkee célibataire rek célibataire la. 11h pile. tale day xool montre am mille boo bu ko defee jabaram indi day daw. bañ a daw. <laughs> waa ligne 43 maa ngi leen di <laughs> ngay nuyu noonu. waa non maa ngi béggee ñëpp di béggee xam nga. Mhm. booy waa ligne 31 bi maa leen moom parce que chaque jour. ci lay jaar temps yi moom boos la temps yi bu ma neexee ma dama daan xëy. Mhm. six heures wala boog ay ay ay ay cinq heures et demi ma yeewu sangu mhm. mais pont bii daal wax dëgg yàlla chaque jour naa ko tudd fii léegi sept heures laay xëy déedéet non sept heures laay sept heures vite la oto bi di def nga ah, wàcc am na solo jaar noonu côté Grand Yoff daal parfois mooy am tuuti benn embouteillage ñu ngi doog am APS bu génnee ah? ngi doog am APS temps yi kay APS bi moom xam naa ne oto ya fa doon jaar moom xam naa ne <laughs> temps yi mooy loolu seen kii budget wàññeeku na tuuti ah, surtout mais liggéey rek moo am solo loolu am solo la di wax que ne bu ñu continuer ci affaire yooyu ci euh, ci liggéey mhm. réew mi dañ koy jëriñoo loolu mooy bu ñu la falee pour nga liggéey mhm. da ngay liggéey mhm. xam nga keneen bu ñu ko falee pour mu liggéey kooku ñëw continuer liggéey mm-hmm. réew mi jëm kanam mm-hmm. mais gars yi dañu bari wax trop wax rek wax wax <laughs> mi ngi noonu ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne euh, ñu ngi scotché devant leur télé mm-hmm. di euh, jàpp TNT euh, canal 108 di ñu seetaan ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ñuy déglu ci 97 point 5 yéen ñëpp ñu ngi leen di béggee bu baax waaye du ñu fàtte internet yi nga xamante ne si YouTube bi la ñuy seetaanee ñu ngi leen di béggee bu baax a baax balaa ñuy ñëw nag ci journal bu baax bi dañuy daal di numéro yi nga xamante ne si ngeen mën a participer euh, ci euh, euh, émission bi mhm. muy 88 628 84 84 ngeen def plus 2 wala 88 628 85 85 ngeen def plus 2 wala 88 628 86 86 Euh, plus de ngeen daal di mën a dugg ci émission bi ñu daal di rek jàll rek si euh, suñu journal bu baax bi nga xamante ne dafay traiter toutes les informations ci kaw professionnalisme yéen comme ni ngeen ko mën a gisee nii à 10. Mhm. Euh, ñu ngi wax ne famille victime yi li xewoon fii mars 2021. Mhm. ñu ngi génn pour ñaxtu. Mhm. ndax gannaaw bu ñu gisee CEDEAO ba pare dañoo daal di dem gis ONU. parce que mbir mi tamit bu ba tey. Euh, puusul randatul daal. Mhm. voilà ñu def si jàngat bu am solo euh, su ngeen bëggee xam lan lañ ci wax da ngeen di daal di koy dem euh, jëndi. 100 mhm. francs dong lay jar wala ngeen dem ci réew mi point com également di ngeen fa mën a am toutes les informations. Mhm. bu ñu jógee ci actualité société bi ak ñu daal di dem ci actualité sportive également dañ koy daal di traité ci réew mi. bu fekkee baax na uli mi ngi noonu euh, waaw première page réew mi première page non ñoom ñun suñu xët bu njëkk xam nga xët bu njëkk lu muy tekki. xët bu njëkk. mooy rëq bu njëkk rëq bu njëkk ñun suñu rëq bu njëkk dafay daal. Mhm. waaw suñu xët bu njëkk tout le temps rek macha allah ko léegi léegi. Mhm. tey boo xoolee le président de la République c'est l'homme le plus renseigné. Mhm. mais fan lay jëlee information fudul ci réew mi. mi ngi noonu ñun ñoo koy jox les informations <laughs> ba euh, moo fi nekk Sénégal. waaye ci diggante boobu noonu dañuy bëgg ñaan mu am médiateur koo xam ne dafay indi jàmm ak salaam. te Nations Unies lañ ci mm. ko bu taxawee fii na taxawee fee parce ñii c'est ordre la ñuy ordre de mission. Mm-hmm. dóoral dóoral dañuy dóor. Mm-hmm. parce que seen liggéey kaaraange réew mi. Mm-hmm. ñee nag seen métit la ñëwaale ak seen rancœur. ak seen kii boo leen defalul ca teel. bu ñu songee ñii ñee ñoom dañuy riposter. parce ñii dañuy bañ ko yàq te ñee dañoo jóg pour yàq. kon acte boobu noonu waaw moom la wax daal Nations Unies xam Nations Unies li ñuy wax mooy famille victime yi. nga xam tey mooy quatorze morts yi. Mhm. la la la la la famille victime yi saisir. Mhm. ngir ñu indi ci ay leeral. waaw mhm. mooy par exemple tey ñi nga xam ne ñoo fi gaañu woon. ci mois de mars ba weesu la famille victime yi dem saisir. Mhm. ngir ñu xam lan moo leen faat. effectivement je crois que loolu la réew mi indi. loolu la réew mi indi def ci jàngat bu euh, am solo waaye tamit bu ñu demee ci euh, euh, actualité sportive ñu ngi wax que ne Sa finalement dañ ko déclaré vainqueur sur Reug Reug donc fu mu ne nii wax ji daal kii na daal. ferenkulaay na daal ku ne xam ne te gis naa sax seen benn vidéo ñoom mhm. ñu ñoo bokk en fait mhm. su ma la daanee boo ma daanee ñun ñëpp ay sénégalais lañ donc ndam am léeg-léeg mais it euh, défaite dafay am daal ku nekk daal di nangu loolu bu rafet la nag waaw mu ngi noonu daje bu rafet vraiment jox ko xam nga mhm. ko félicitation champion mu ne ko yow tamit champion nga c'est ñoo ciy ñaaw rek waaye ñoo ñaari mbëri fu ñu dajante moom maa la ko wax saafonte moo ci am non yi nag une ñoo neexal lamb ji ah. mais jarul muy ñaaw daal fair play waaye non jarul damm siis jarul jarul damm siis jarul kii jarul kii mais moom daal li may ciy wax laay waxaat làmb ji daal ay vaar bu ko ci kenn dugal ah, da ko yàq waaye day yàq làmb hmm. nun suñu làmb Sénégal gii hmm. buñ ci dugal vaar hmm. buñ ci dugalee vaar day yomb trop moo vaar mooy lan vaar mooy maanaam lu nuy wëri pour gis ko loolu neexalul làmb làmb daal nañu fexe de telle sorte que li ñu waxoon wax ko daan bi leer nañ ak ki ñu mën non am na yenn condition yoo xam ne bu ñu la ci fekkee mooy yi ma doon wax rek nañ fexe ba par exemple ku defati quatre appuis hmm. CNG dimbali leen ngir làmb ji neex <laughs> quatre appuis boo xam ne ni kit kit seconde la hmm. loolu du quatre appuis hmm. waaw quatre appuis toog fa trente secondes quatre appuis la xam nga ñu wër la ndomba nar laa rey di dóor yu métti arbitre daw atte jaal jël la ngir ñu sauver waa ji mais làmb joo xam ni pirip dip ku toll ni càlle songu Yékini xaw a yërndu Yékini kam nga dem boo koy songu ma rocceeku sa waay rëb ma dal ko làmb non yow il faut ñu bu yàggee non damay bëri damay damay non damay wuti xaalis làmb di leen yomb na damay bëri de mais càlle il faut ñu utal ko combat di leen damay bëri est-ce que duñ la boole ak Madani dafa yomb sax kan est-ce que duñ ko boole ak Madani dafa yomb waaw ay quatre appuis dañu war a wax ñu dóorante ba mbër ba mbër daanu ah. dañ ne kii kawo na ñu wax un comme ni ñuy def box deux ba dix jugoo hmm. ñu yenu yóbbu wala ñu def làmb trois round làmb trois trois rounds. waaw nga xam ne combat yu bëri. Mm. combat bu mag ñu def ko trois rounds. Mm. Mm-hmm. affaire bi commencé. mais nag te man ay spécialiste la am fii ci plateau bi kii waaw ah, spécialiste en lamb laa fi am. waay yow yaa teg say jiw waa ba na ngeen déglu lii ndax gars yi nu bëgg a yombalee suñu lamb lamb ji ay ponkal entraîné ba sot nit ñi toog di seetaan. ñu fay la ay millions yu bari. na ñëw di wër wërloo xam nga parfois nga dugal bopp noonu dugal bopp xam nga xam nga boo gaalee toll ni man mel ni kell boo dugalee bopp sa waay di song nga nga arrière waa ji rëpp dugal nga nga nga léegi nit ñi fayoon seen xaalis lay toll lay toll ñu ne baaraam ba damm na waaw nit ñi fayoon seen xaalis yëpp toog toog di seetaan alors que li ñu bëggoon gis mooy xam nga lan mooy làmb uh-huh. roofoo mm-hmm. bëre am doole ñu gis bëre mm-hmm. daan am mais mais da ngay ñëw di Njaaba Njale di Calle Calle. <laughs> dafa yomb lool. te bu ñu xoolee <laughs> ni mu koy wax. waaw Calle sa tur bi fu mu jógee Calle Calle bi. <laughs> jamono hip hop la. xam nga boo xoolee ba xool làmb day indi jàmm ci dëkk. Mhm. stabilité. heure bu mhm. dëkk bi amee coow rek. Mhm. làmb am rek da ngay fàtte dañuy fàtte coow politique ak yëpp. dem làqatuwaat ci aada ak cosaan. dëgg la Calle man diis diis a man Calle dana leer xam nga. polémique boobu mooy ñëw ba jour combat bi ñëw. gars yi ñëw. Mhm. après nag la coow li di amaat. Mhm. waaye lu mu ci mën a demee rek état bi ci boppam moo war a defaraat làmb ji. Mhm. bu ñu ko bàyyi ay CNG. ndax nekk na loo xam ne sport national la. dañ ko war a defar ñàkk ko def ci ay disposition yoo xam ne macha allah parce que dangay gis léegi mbëri dañuy dem ba feebar di ñaan ndimbal te chaque jour ñu dagg mbër ay millions ci ci reliquat mbër di feebar di am kii amuñu benn kii boo xam ne maanaam mën na leen couvrir couverture sociale ak yu ni mel quoi war nañ taxaw président bi waaw ñu koy dégg mu ngi ciy macha allah moom am na ay pas d'avance. Mhm. waaw ñu ngi am yaakaar daal. Mhm. am na solo d'accord léegi euh, li ngeen fi wax am na solo torop torop. Mhm. mais comme ñu ngi ci dernier numéro Buzz Show muy jeudi dañuy daal di euh, am euh, li ñuy wax revue Buzz. Thialé di ko def. dañuy dem régie dem jëli ko daal di ñëwaat ci waxtaan bi.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 États-Unis <coughs> eskey dokkeer bi mu ngi wuyoo ci turu bee Camara gambien bi mu dig pièces yooyu nag mu ngi wuyoo ci turu sek sawaay daal nee nañu ba mu digee gambien bi papier yooyu gambien bi dafa bek ba yaakaar dundam tekki na daal di woo yaayam naka noonu yaayam envoyé ko vingt mille francs sawaay daal di koy jox dokkeer bi dokkeer bi ne ko dolliwaat ma sawaay dem di takkale di takkale dolli ko ba mu mat trente cinq mille francs docker bi nag ba mu jotee ci trente cinq mille francs yi ca la gëj a wax lu ci jëm saa ko gambien bi laajee docker bi di ko lakk ay daada ba mu def ay weer ci la docker bi mujjee porte plainte ci la gambien bi mujjee porte plainte ba ñu mujjee teg docker bi loxo docker bi nag biñ ko tegee loxo yóbbu ko di ko enquête moom nangu na lépp li ko gambien bi tuumaal fi mu ne kay li muy laaj mooy na ko yoon jéggal waaye ak jéggal problème yooyu yëpp mujj nañ ko garde à vue ba noppi defeere ko parquet <laughs> waaye ma loo moomul ba ko fa laa wax mun a trop moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax dem gajaga mi nag li mu def ra mun a doy waar moom daal ngir dagaan cofeelu benn xale bu jigéen dafa tax mu def li tubaab di de usurpation de fonction mu boone police <laughs> nga ni ma ne mbir moomu mu ngi xewee ca commissariat bu Médina ndaw si ñëwoon fa di déposer plainte gannaaw mu déposé plainte am day génn ci la dajeek M Gajaga M Gajaga commencé koo dragué di ut bunt ne ko yow moom maasàlla moytul xeesal ma ne xam naa ñu laay ndaw see ko daane waaye ak yooyoom yépp ndaw si ubbiwul bunt li xale yi di wax fattal ma foofu M Gajaga bi mu jaaree foofu doxul ci la ubbee beneen buntu dal di xoggaliku ne xale bi sama oto dama koo gaare ci commissariat bi ndax sama bureau fa nekk aw law te sa waay daa dëgër fiit loolu yëpp bi mu koy def ci buntu commissariat bi la ko doon defee naka noonu fekk benn policier mu ngi ci wet ga di leen bàyyi xel policier boobu moo mujj interpeller ndaw si laaj ko lu ko waa ji doon wax ndaw si expliquer ko lépp ndekete yoo am gajaga ab commerçant la bu doon jaayee ci wetu police bi noonu la ko arrêté di ko toppee usurpation de fonction ba M Gadiaga ci boppam mujj nañ ko attee ba daan ko ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd waay waay bay leen wane noo leen melul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax commerçant bi nag li ko dal romb na doy waar moom daal benn étudiant la xamante loon ci biir place am ndax étudiant bi dafa ñëwoon di jënd naka noonu ci la ko dragué étudiant bi dal di koy tegtal fi mu dëkk sang bi dal di fay dem waxtaan moom ba ñoom ñaar ñuy génn waa ji dem na ba génn bi muy génn ak étudiante bi xamante na ci ak ay way juru étudiante bi waa ji saa bu ci kër gi way juru étudiante bee koy dalal sa waay di def ci moom lu ne feet bu ñëw mu xottil ko ndekki reer ak paasu étudiant bi lépp sa waaye ko gàddu woon sa waay ay yére la doon jay <laughs> ma ne ko sa palaas bi dina daanu de waa ji li mu seetlu mooy saa bu waxtaan waxtaane ak bi ay waxu takk étudiante bi du ci sawar danaan ko xaaral bés nag ji ne ko man ay tànku caaxaan taxumaa jóg danaa waxtaan ak say waajur waa ji mu demee di waxtaan ak waajur étudiante bi ci la ko waajur yi xamalee ne étudiante bi dafa wax ak benn doomu dija étudiante bi dafa wax ak benn doomu nijaayam ñu nas ci wàllu sëy ba fi mu ne waa ji bàyyi na fi kàddoom nga ca bitim réew waa ji ci saa si mel ni ku ñu xëpp essence ma ne wonen ngeen ko ko teel a wax nag waa bi mu ñëwee ci etti jant bi di ko laaj ñu mbir mi demee ndaw si daal di toqali bët di jooy ne ko li la samay wayjur wax dëgg la <laughs> ma ne ko nag vraiment yomb la di génn ak nit mu lay defal lu ne fekk yaa ngi signé pacte ak keneen ko war a sëyal jigéen ñi bàyyi leen soos fii soos fee koo leen bëggul bàyyi leen poosam bàyyi leen poosu nit ñi mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz alors mu nekkoon seen xibaaru revue buzz mu nekk euh, li Thialé di indi nga xamante ne day nekk ci euh, dernier numéro de la semaine nga xam ne dafay def brosser tout ce qui est euh, fait divers fait de société da ko si daal di waxtaane challenge chaque jour daal réew mi boo xëyee da ngay gis ay cas yu bees. ay cas yu dul jeex. moom kay cas moom da tànn yoo mën a wax rek. waaw sinon comme ni ko diis di waxee da ngay tànn yoo mën a. wax yoo mën a wax rek mais sinon y' a trop de choses qui se passent en fait. y' a trop nga sax bañ a génn fenn. Mhm. parfois ci confession yi ngay am ak nit ñi. Mhm. ak parfois. ni ngay xippee say bët di xool ak li la li la wër rek à chaque fois danga ci ciy mën di indi loo xam ne nii mooy loolu mhm. waxuma laa sax ci ngeen mais fi nga dëkk rek sa biir kër rek parfois da nga si am ay mbir yu fay mooy loolu moo tax émission yu mel nii metti parfois nga wax ba génn dem sa biir kër mhm. ñu teg benn thème mhm. ça n'a rien ak yow li nga indi nga ñëw fekk la ngay wax sax sa biir kër la nekk ñu xool la jéppi la waaw foog ne da nga ku koy def coo dafa metti par nit ñi dañuy yaakaar ne sax diw ñoom ngay waxal fekk yow da ngay wax rek te yàlla rek tax bi bi njëkk bi moom mooy waa ji. muy mhm. ki nga xam ne nii tey mooy docker bi. waaw jàpp ba gambien bi ñëw ci moom. Mhm. jóge dëkkam ñëw di liggéey si. Mhm. mu xam nga nekk ñoom ñaar poor la ñu nekk. waa ji ne ko mun naa la utal kayitu sénégalais. Mhm. utal la li nga xam ni tamit moom mooy xam nga. Mhm. Euh, carte d'identité séné sénégalais. waaw la ko wax ba pare ne ko mun naa la utal passeport kii passeport États-Unis yow di nga wax ak nit mu nekk fekk ko moom munul boppam mhm. dara. ne mu ne la mun naa la utal passeport États-Unis yow nga gëm ko. ba bay jël sa xaalis mais kooku bu ko mënoon du génne boppam dem yoon. vraiment. vraiment yomb na trop mais 35000 la ko jox. mais 35000 la ko jot a jox waa ji ne may dem yoonam. moom 35000 rek mu daw. Eh, mais xam nga rek xam non maanaam xam naa waa waa ji day wàcc day <laughs> xam naa waa dafay wàcc bees. mu xam ne bu xuusee. day xaw a day xaw a doy waar xam ne 35 mille. si mun jënd sax a wax. 35 ah. am 35 mille. Eh, xaalis xaalis la. bu ko war a juger li at li mu def rek. waaw 1500 moom ak 2000 francs moom. ma ne 1500 mooy sàcc sàcc la. sàcc sàcc comme ni beneen bi ci des moom mooy. Mhm. mooy mooy mooy mooy waa ji usurpation de fonction dañ koy gis lu bari. Mhm. mais kii moom dafa dëgër fit. tax toog di jaayee ci buntu xam ci buntu police. Mhm. xam nga mais nag mbëggeel mën na lu ne comme ni ko gars yi di waxee ko fi nekk fi police mhm. policier fii case bi rond point mhm. mhm. yi mënat la yor mënat dañuy ànd ak beneen gaayen bu ñu kenn ki ne sa ginnaaw moo lay distraire mu naan la e kii moo nekk commissariat bu fële xam nga da nga koy gëm fekk mënat la lay wan nga ne ko sa carte le temps muy génne carte kii mu ngi lay distraire bu ñu paree sa sac la jël pour vérifier ko pour xool lu ci ne fekk fekk dóor mois ba fin du mois bi lañ koy def. fii ci mhm. case bi lañ koy def te gaañ bi koy def. Mhm. oto police mi ngi ne taxaw. Mhm. gaa yi ñu ngi toog police beeg yëpp mais moom mi ngi ñëw boo gisee auto police fee gis gaa yi ñëw mu ne contrôle de routine da xam ni nii la bi ñu fa jógee dama dem police euh, parcelle di wax waa juridiction golf la foofu. Mhm. Mhm. foofu noonu parti mu ne ma fan ma ne ko fi ñuy jëlee oto Pikine yi. Mhm. mu ne ma foofu noonu waa golf ñoo ko moom demal police golf nga waxi ko fa. mais boo demee sans suite yóbbu. wala fay courant wala yu ni mel mu torox jël leen seen i devant au kii parce que ñeeneen nañ seen juridiction la. waaw après après du am suite man loolu moo ma si gën a ah, jaaxal. en fait da gis lu am solo loo xam ne da ko war a dénoncer nga dénoncer ko. Mhm. mais ñi si war a taxaw duñ ci taxaw. voilà nekk loo xam ne mooy li ñuy wax rek te gars yi dañu aay. te léegi c'est police xam nga sénégalais bu ñu jëlee c'est la police. dañuy waaw ñoom dañoo ragal police. c'est que xam nga mooy problème bi. ñun mhm. dañu ragal loo police. c'est ça exemple agresseurs yi fi lañ nekk. Mhm. policiers yi nekk fii. Mhm. nga nekk ci diggante bi ñu ne wuub ci agresseurs yi ngay daw. Mhm. te or que police moo yor sa sécurité. parce que boo demee ci policiers yi ñoom li ñu jël kii mooy dañ lay jaawale agresseur yi jaawale ñàkk kersa. surtout le respect du citoyen. xam nga la moo gën a métti ci citoyen. nga fekk ko ci biir nawal nawleem. gor toroxal ko pare dem ne ko du yow imagine nga ñëw jàpp tëbayam pamte pamte ko mbéj ko ci kanamu ay doom ko gis mbéj beeg yooyu dugal ko ci oto bi sànni ko mm-hmm. dem ba ci biir ne non du booy bi da ngeen koo jaawale nga ne ko mm-hmm. booy pardon de pardon faj na faj na kii mais faj na loolu yëpp xam nga lan la mm-hmm. ñàkk xam sa ñoom par exemple tey ñàkk xam seen seen liggéey merci ak par exemple tey nga ak ki ñu koy def mu ñàkk xam ay droit am man boo ñëwee ci man ak noo mënti mel mhm. ne ma policier laa dugg na nangam sangam non sama yi nga xam ne ni tey mënu ma ko kii ay sama saak mhm. non duma la ko jox parce que sama saak li ci nekk c'est confidentiel du ma ko jox kenn boo ma jàppee yóbbu ma war mandat boo ma yóbboo sax su ma neexee am naa am naa taxaw ne du fi wax dara mhm. fekk sama avocat ñëwul fekk nangam sangam mhm. am nga mais nag ni nga ko waxee noonu la ko ngay waxee boo dëkkee Sacré Cœur la ak yeneen yi ak point heure bu ñu la nga xam say bu ñu la jàppee nga xam say droit boo xamee bu la la c'est un voyou non bu ma ne xam say droit mën nañ la mën nañ doxalee ak yaw noonu mhm. ñun ramasse nañu bi ñuy di ramasse côté buun man ak sama ñeenti copain quatre non trois copains. dañ doon yóbbu ñaw gars yi noonu ramasse guddi gi ñëw ñu gis oto bi ñëpp daw man leen mais bu leen daw ñun defuñu dara. Mhm. neuf mhm. du heure de crime du dara ñun defuñu dara. kaay leen dem. Mhm. ñu ñëw ba gis nga dañoo tourné gars yi ay. mais nu ñu tourné sa kaw bu ñu ko tourné woon ci ak ci ko am cardiaque da ngay dee. ñu ñëw taxaw gars yi dañu taxaw leen. taxaw mal leen man leen lan lañ def. ñun dañu yóbbu woon ñëw ñu ne ñu acca def def leen nii ñu def nii ñu ne ñu yu euh, anama ñu topp ci dem toog ñu ne ñu toog leen ñu toog jeex na bi ñu ci biir oto bi mhm. ñu bu ñu yeggee gars yi jëlee ñu foofu yóbbu ñu zone France bi ñu xëyee ñu bàyyi ñu defuñu dara parce que parfois dañuy def day opération yoo xam dafa am ñu seet mhm. waaw fayuñu dara ñun nag dañuy fay 3000 wala 6000 pour suñu pour dara fayuñu ko kon daal discrimination dama lay jox benn exemple mhm. corona ba tey ma ngi fi ba tey corona mu ngi fi. Mhm. ñaata lañ fi dóor mbéj leen fi. Mhm. ñaata lañ fi fekk ci biir kii amuñu masque ñu fayloo leen ñaata 3000 te duñ la jox quittance. Mhm. benn reçu du am. c'est ça la wàccal nga ñëw ñu ne la taxawel ne nga xam damay tardé grand lu may fay ñu ne la 3000 nga génnee 3000 joxe doo laaj benn justificatif fan la xaalis boobu di dugg. dama bëgg wax ne ne la. justice justice la. dañ la fal pour sunu kaaraange. ak lu mën a demee dañ la respecté hmm. respecté mun la yii mais tenue bi lañu respecté hmm. drapeau bi emblème bi guy gi hmm. moom lañ jox cër parce que dañoo gis suñu papa yi doon ko topp ñun ñu war gi ñëw topp mais yow tamit respecté ñu en tant que citoyen xam nga booy xoolee ba boo ñëwee par exemple xool benn ki nga ne ko journaliste la yoon journaliste yi ngeen di def. xam nga yaa ngi yaa ngi tooñ parce que da ngay wax ma ne la du ma journaliste. Mm-hmm. animateur présentateur la mm-hmm. journaliste beneen domaine la. Mm-hmm. booy yéen ñëpp a yem booy xam nga doo ci ne c'est certes ma ko ak comprendre. yow yaa ngi xool noo ca génne. génne situation boobu noonu. ñàkk kersa googu noonu fan lay mujj après. corona jaar na fi dóor nañu fi laaj nañu fi 6000 nga ñëw 9h ñu ne la léegi. xam nga lu ñuy wax. dangay ñëw ne leen booy bi kat war am carte d'identité ñu ne la président bi nee na à partir de trois ans. Hmm. ba vingt ans danga war a am carte d'identité. Hmm. ñoom loolu la ñuy wax. lool loolu loi la dafa génn. Hmm. voilà ñu ne la président bi ne na képp ku ñu gisati ci mbedd bi à partir de vingt heures ba vingt trois heures contrôle de routine mën nañ laa jàpp mën nañ laa yóbbu. mais yow sa buntu kër ngay dugg boutique ba di ut loo lekk mu leer ko ni kii day uti lu mu lekk. xamoo jabaram moo feebar xamoo yaayam xamoo dara. Mm-hmm. muy dugg ci biir nga ne ko booykaay mu expliqué la citoyen da nga koy déglu. c'est ça parce que xam nga homme de mm-hmm. loi. Mm-hmm. rek xam psycho étude psychologique et mentale da koy xam. bu ma taxee ne la grand nga baal ma de waaye ma yaay dafa feebar. Oh. wala pharmacie bi laa jógee garab bi laa yor nga mën maa bàyyi ma dem. wala mais non yéegal yéegal non booy ñëw nga yéeg mu perte loolu temps ñaar yoon nga dem fay. dellusiwaat ñu waat toog sa biir kër wala ñu dóor la ci loo xam ne defoo ci dara ñu ne la demal nga toog urgence nga am doo xam moom laa lay wax ne moom laa lay wax sàng ne gars yi mhm. daf ci am ñoo xam ne ni tey amuñu xamuñu mhm. seen liggéey par exemple ni ñu koy doxalee du noonu dëgg la ak ci biir citoyens yi ñi nga xam ne tey xamuñu seen seen ay droit mhm. li ngay wax nii lu am la ñoom parfois da ngay gis que ni ni ñuy ñëwee ci nit. Mhm. du doon noonu. quoi xam nga da ngay sax tiit. Mhm. parfois ñoom ñi nga xam ñoom ñooy war a nekk ñoom ñooy war a def loi sax ñoom ñooy nekk hors la loi. mais aussi tamit citoyen bi dafa war a xam. ak xam ak yelleefam. Ah, xam nga li dañ doon wax sànq ci affaire yu dóor. Mhm. waa ji dóor ko ba nga indi sa cas ba indi policier bi. dugg ci affaire boobu noonu. mais dama ne yow nit bu ñëwee. ne la man policier laa. donte moom la. taxawal ne ko d' amal yow loo loo kii mais am na luy firndeel ne policier la. carte carte lan am sa carte. Mhm. ainsi de suite nangam sangam taxaw. Mhm. mais yow nit dogaale la rek ñun ay policier lañ rek beneen waa taxaw ci ginnaaw rek ne la eh. eh commissaire nangam sangam waaw bu waa li ab même bu auto police taxawee nii yow léegi sac bi nga ñu ne la ana sa sac mm. léegi nga jël sac jox leen fekk ñoom ay sàcc lañ ñu jël sac ba yóbbu wala ñu ainsi de suite yow léegi yow doo man képp kuy ñëw ci man parce que aussi itam ñii xam ñii déglu dañu war a xam mm-hmm. képp kuy ñëw ci yow bu ñëwee ci yow ne la policier mm-hmm. xam nga. bu solee tenue ak bu solul tenue. te daw da ngay xoolee nit ñi dañu a xam ne comme yow Caaroy. non nit ñi a xam ne wax ne la dañuy toog ñu ne tey comme ni ñu waxee journée mondiale de la femme. Mm. tojal ñu àq ak yelleefu jigéen ñi jigéen ñi ñu mel ak jigéen lii la ak lee. Mm. mais ñoom nan la ñu mën a dañuy tax émission yoo xam dañu naan suñuy droit lii la seen droit lii la. waaw mais mais mais nit ku mën a ñëw ci yow. Mhm. loolu la loolu bëgg andi leeral nii. waaw nit ku mën a ñëw ci yow. waaw mun nga nekk nga nekk par exemple tey li nga xam tey mooy takk der nga bu solul tëni. Mm. mais bu ñëwee ci yow ne la yow takk der yow nit bu ñëwee danaan la nangam sangam. Mhm. pa bu ñu lay jël si. Mhm. bu ñu ñëwee bu ñu solul tëni. boo xee dañaan la lo eh, yow yaay kan. ñu ne la c'est la police nga ne la ñu génnee carte. nga ne lii bu ñu fekkee dañ la war a monnaie ñu génne seen i monnaie yóbbu la mais ab waay ñëw salaamaaleykum ñoxoon Njaay mu ne la policier la taxaw ne sol comme man mm. comme nii ma nii nga ma gis waaw ne la ne la sa saag nga jox ko saag non non non loolu moom yomb na trop dañoo ne la c'est la police nga ne ko pardon sa carte laa bëgg a gis nee naa la déggoo bu baax li ma la wax mm-hmm. c'est la police nga ne ko pardon sa carte laa bëgg a gis ku nekk xam na ay yoonam mm-hmm. Mm-hmm. xam nga mu ngi nii raabaa ngi nii non waxuma yow de ñi waa raabaa ngi déglu xoolal gis nga nii monote bi da koy def nii ba muy feeñ ci kii bi xam ne monote kat la yor te monote c'est un du ko yor. waaw le temps ngay calculer moom muy génne kartam pour wan la ko. kii mu ngi lay distraire. waaw moom laa lay wax léegi ñooñu nag waaw distraction boobu nag te yam mm-hmm. bu ñu la koy wax c'est à cinquante mètres auto bi fi mu taxaw rond point case ba ni policier di nekk c'est bien surveillé mm-hmm. auto police baa ngi da ngay xam ne kon ñii kon ñee toog ne mm-hmm. am na ay civil yu nekk fii yow da nga naan alhamdulilah police baa ngi seere parce que civil yaa ngi fi di dox amul dara dooruñu dara dóoruñu fa dara man balaa maa génn sama sac dama génne sama sac ne ko si presse laa bokk gis nga ma mm. Mm. mu ne ma ko ci yéen la ñu bokk ñun ñoo bokk benn liggéey bi ñu mm. bokk teen la ñu dugalaat sama carte mais keneen bu leen joxee saaga mënuñoo dóor li nekk ci sac dañuy dóor li nekk ci loolu laa lex léegi nag ñooñu laa bëgg a waxal leen sensibiliser leen surtout bu leen bu nit du ñëw ne la diw rek nga yëkkati say loolu am na solo ñi ñuy déglu nañ bàyyi xel baax loolu loolu nit ñëw rek la c'est la wan la mënoot wala parfois sax carte sax mën na bañ a nekk carte bu dëggantaan vraie carte mën na bañ a nekk vraie carte mën na am zone rek waaw yow yaay war a am dal booy àndal parce que bëri nañu da gis benn waay bu taxaw ci tali bi sax mm-hmm. gàddu sifflet am romb benn waay <laughs> mu bëgg a dem tuuti xam nga raquette la yow nga jox ko dafa yomb trop. li may wax rek Thialé ñun gis nga xam-xam bi ñu am nii. bu ñu ko mhm. utiliser woon ci def leneen lu baax. wala mhm. créer mhm. non kenn du ñu gën a développé. mais da ngay gis koo xam ne suba ba jant soo. li muy liggéeyante mooy nu muy dóoree. te xam-xam la am dañuy intelligent mais ay affaire de dóor rek la ñuy. yi bëri naa bu bu ci mujj bi aussi. xale étudiant boobu aussi sam pour man. dafa dóor commerçant bi commerçant ak sa doomu nijaay ngeen mm-hmm. waxtaan ba mm-hmm. waa ji tukki dem yoonam mm-hmm. ngeen waxtaan nas ba ba kii nga toog di ko xaar nit bu ñëwee ci yow di la bëgg si oh, nee ko ah mankat dam am na ku may bëgganteel yem ci moom kooku bu la mënee defal di la defal say waajur yi la mën a defal mais yow nga dem gisanteeg waa ji waa ji waxtaan ak yow ñëw sa biir kër ngeen waxtaan ba juboo parents yi aussi ay complice lañ bu ñu gisee ne par exemple tey ndaw si mu ngi génn kii te ci waroon nañoo woo waa ji ba mu ñëw mhm. ñu ne que kii kat mu ngi ci loxo yi sàngam mhm. mais waa ji di defal xale bu jigéen bi waaw feet bu ne ñoom moo koy defal ah, ah yàgg nañu waaye ay ay ay ay ay paasu xale bi sax waajee ko yor gis nga ba waa ji ñëw wax ak way jur yi way jur yi ne ko kii dafa nekk ci xale bi tam répondre loolu waa ji mm-hmm. kon xale bi dafa raket waa ji vraiment mm-hmm. non dakaa raket jigéen gis nga góor daal soo ko bëggul mm-hmm. no bàyyi leen poosam mais jigéenu léegi xam nga la ñoom daal sa poos la ñuy bëgg duñ la bëgg ba pare duñu bàyyi sa poche. sama paa bu baax Paa Touré tele indi woon dafa kaa boobu. Paa Touré macha allah ñu ngi koy ziar mooy wax ne góor boo ko bëggulee bul lekk xaalisam. waay dëgg la ndax daf lay topp sa yu bëri yu yëngatu léegi. c'est parce que dafa am àq boo xamante ne dafa xale bu jigéen bi da ko amoon ci ñu mu doon àndal. parce que mhm. yow bëgguloo nit ki xam nga ne bëgguloo ko tu l'aimes pas. Mhm. mais comme gis nga ne mu ngi lay defaral rek. Mhm. nga nga nga force relation bi. donc loolu war nañ ci gën a bàyyi xel parce que loolu àq la. Mm, dëgg loo ci bëgg euh, sàndi mooy li ngay wax rek mbëggeel lañu wax daal nit ca la indi woon na fi benn bës show boo xam ne. Mhm. waa huit cent mille la joxe. Mhm. ba pare juru takk ba xaw ma. Mhm. mu ne France ne xëddin ba mu waree jot si soxna si ñu ne doo ci jot. yaa ngi koy boo xam ni procureur a ko wax. boo xam ne comme la. mais waa ji est-ce que dana ko toppi. parce que première chose bi nga xam ne arnaque la. xale bu jigéen bi loolu loo ciy jooy. kenn xamoon na ko. mais xamoon na waa ji kay rayam la ko defoon jooy lan la waa di ko expliqué ko dañu bëggoon may lu muy jooy. nan la war a jooyee quoi. bu ñu ko laajee looy jooy lu mu yor. non li looy wax waa koñ. dama laa bëgg waaye su fekkoon njëkk ngaa ñëw xam nga la mooy nit ñi ban terme lañ war a bàyyi. xanaa yéex laa xam rek. su ma la xamoon bu njëkk du ma nekk ak kii. yéex laa xam rek. yooyu noonu dañ ko war a moytu. dëgg la ci wax loolu ku ne yéex laa dawal bu la xamoon bu njëkk noonu la lay def. mais ni mu amee si jigéen xam nga noonu la amee ci góor ñi léegi. góor ñi léegi du ñu ànd ak euh, cas social. waaw d'accord jigéen boo xam ne liggéeyoo léegi dañuy ñëw naan la Euh, bee sama téléphone bi dafa nanga ak wala dama soxla woon nga abal ma fii benn cinquante mille ma am lu ma liggéey. cinquante mille boobu moom mos a gis am na góor ñoo lu ñu am. Mm. Mm. ci jigéen xam nga am na mm-hmm. góor ñoo xam ne seen business yëpp. Mm-hmm. léegi comme ni jigéen ñi amee par exemple tey ab entreprise yu mbaraan. Mm-hmm. noonu la ñu amee seen entreprise. dóor boo xam ne ni tey yi lu ñu am. ci jigéen ñi lañ koy yi la ñuy la la ñuy scooter yi yor ak. téléphone yi ñuy yor ak. yeneen xale yi ñuy doxaan sax ki mhm. seen dañuy dem raquette benn xale bu jigéen ngir doxaanee ko beneen xale bu jigéen am na mais loolu yëpp sam pour man ci mhm. yenn jigéen yi mhm. ñoom ñoo koy nangu parce que yow da ngay génn ak benn gaayin boo xam ne dalay leer ni kii bëggu la da koy xam waa ji benn chaque jour bu la waxee lii lee la lay wax xam nga bu la nee lii lay lii lay def suba la la lay def. Mhm. parfois ki seen biir génn yow yaay nekk xam yaay jéem a tëx tëxloo ko. gumba gumbalu mais da ngay gis que ne kii. Mhm. bëggu la. Mhm. góor jigéen ñu ci jigéen jigéen tam parfois ku góor ki day demee noonu. da gis que ne kii bëggu la. ngay forcer mais yow da ngay forcer rek yaa ngi jàpp sa xel ne peut dina ma dina ma mës a bëgg dina ma mës a dina ma mm. ba xëy nag après ne waa ji war na ma fekk waru la yaa war sa bopp. parce que gisoon nga boobu la mu koy jox noonu amul leneen loo xam ne xam neex na ko ci xale bu góor boobu. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw peut dina si am benn benn euh, kii retour moom it. jamono toll. Mm-hmm. projet boo dee góor kenn la financé jigéen la nuy financé dëgg la de. fi jamono toll. ci gi oto yu rafet yi ngay gis nii. jigéen ñee ko yor jigéen ñee ko yor. macha allah concessionnaire yi. jigéen lañ nangu jël service gannaawal waaw kay yàggee nag léegi nag boo <laughs> ci bëggee génn jigéen hmm. ñoom ñu li ñuy am ñu la ciy jox. gis nga xeex yi jigéen ñi di góor a góor yàggee góor ñi fii ay deux mille ah. deux mille deux mille trente. Hmm. waaw góor ñi góor ñi ñooy xeex pour jot seen ak seen. naan dañoo war a am journée mondiale des hommes ñu dañoo sonn <laughs> di xeex xarit. wax nga dëgg journée mondiale des hommes war nañ ci wax <laughs> Ah. <laughs> voilà mu nekkoon euh, commentaire bi ñu doon def euh, ci euh, revue bes bi Thialé di def. Mhm. Thialé li may wax rek roy du piir pire mhm. ndax. xam naa ne xale yi ñuy commencé toppandoo ndànk-ndànk sa sa sa revue buzz bi. mu ngi def buzz de xale yi ñu lay toppandoo. yàgg na kay. non dafa am ñoo xamante ne du ñu na kay. ñu ñu ñu ñu ñu bëgg toppandoo. di ko mhm. kii ñun loolu la ñuy def si corridor bi. corridor bi mhm. da ngay dañuy gis dañuy seetaan télé gis soirée bi glamour baax macha allah nga foog ne noonu la yombee. fekk lépp y a une grosse machine bu nekk derrière boo xamante ne liggéey bu bu doy waar lañ ci liggéey bu bu am solo mhm. yow nga toog sa saal rek foog ne noonu la yombee nga bëgg a toppandoo. donc ça fait presque ay cinq ans six ans ñu ngi koy def. léegi da ngay mm. gis ay boy ci internet bi mais dañ koy def. Mm-hmm. mais nag ak ay images. Mm-hmm. même chose. xam nga yokk mais roy dund rek pire nag. roy dund rek pire yu bëri mais baax na affaire yi moom. Mm-hmm. Euh, noonu lay demee quoi mooy génération vue génération vue. ah yes. noonu lay demee génération vieux GV <laughs> waaw bu ñu jógee ci euh, loolu dañuy demaat tamit ci beneen ponk bu am solo boo xam ne dañ ko seetlu euh, lu bëri si jamono ji ñu nekk nii surtout bi TikTok commencé euh, réseaux sociaux yi gën a am doole. Mhm. ñu gis ne yàkkante bi dafa bari mhm. te yàkkante bi nu muy demee mooy xamante naa ak dix. Mhm. ñu nekk ay xarit ma xamal la lu bari yow it nga xamal ma lu bari. bés ñëw rek xuloo am wala jàppante bu ndaw am rek. nga def live. commencé di ma yàq man it ma def live sama côté commencé di la yàq ku si nekk li nga xamal sa morom nga daal di koy exposé loolu nekk na loo xamante ne vraiment mu ngi bëgg yàq suñu suñu Sénégal ndax xamuñu woon loolu ñun sutura lañ xamoon bi léegi xaawante sutura bi nekk na loo xam ne doy na waar diis hmm. mhm. moytul diw moytul diw nii la mel nii la mel nii la mel sama yaay nee na ma moytul ki nan la moytul diw koo hmm. jara moytu mhm. ndax topp jim topp diw moom moo tax maanaam foo gis loolu boo xam ne am na ci. xam nga nit mi ngi fréquenté nit wala euh, mi ngi jël nit di woote nit téléphone. mu naan ko sama soppeel sama am di jàmm dafa ma bëgg wallaay. Mhm. fekk li may ut yëpp mooy preuve palpable boo xam ni. Mhm. mu ngi koy bëgg a fournir keneen ne ko kii nii la mel. dégg dinaa ko wax loo ba dugal ko ci wax. Mhm. wala mu ne dinaa fexe ba vidéo ko. indi ko sama biir néeg vidéo ko yónnee la ko. wala nga xool ne. comme ni euh, li ngeen wax léegi-léeg ci mbirum mbëggeel te lu ci ëpp mbëggeel mooy demee noonu ci mbëggeel la ëppee mm-hmm. ku foire yooyu nga xam ne moom mooy am mm-hmm. yaa ngi gis déjà da gis sa amoon na benn fait divers bu fi amoon mm-hmm. ci seen parti politique yi ñu jël autorité boo xam ne autorité la te autorité yi ñoom nañ def attention bu baax ndaxte boo nekkee autorité da ngay yor jikkoy kilifa xam nga kilifa jikko la yu ñu jàngale ci lislaam mooy sol turki diine laxa saayoo sagaru jom karaaf daal li ngor dugg ci gutub muñ gas ëmbul daal dafa am sart mm-hmm. yu bëri yu koy critères yu koy moytu mm-hmm. mais waxuñu la nga nekk kilifa di def yoo xam ne boo taxee ci kanam nit ñi wane kilifteef te boo wanee ginnaaw def sa waa moo lay gën quoi nañ wax mm-hmm. de dëgg te la plupart ñooñu lay dal parce que ñoom ñi nga xool ne gis nga ñuy arnaque ak di fen ñëwuñ ci yenn samba suraabale de benn da ngay am alal wala nga am tur wala nga nekk nitu buzz ñu ñëw pour discréditer sa sa sa sa kii sa audimat ak yu ne mel yàq sa der pour nga suulu ñu bëri doo nga leen dégg déggatoo leen ndax lan Mm-hmm. looloo fa jaar mm-hmm. dem na sax ba léegi sax dañuy jël ay kilifa ñoo xam ne dañoo nekk ci wàllu benn wàllu boo xam ne dafa sensible trop mm-hmm. ñu ciy dugal yoo xam ne bokk ci la di leen jiiñ yoo xam ne itam mooy loolu te du man dong bokk ma caa ko gën te ni mu ko waxee nii dafa gën a wulee ñaay kon lan mooy gën a kii rek def attention xam li ngay wax xam fi ngay teg sa tànk ndaxte mun na ma dal mun na la dal keneen mun a nii nii mu am na vocal boo xam ne nit boo xam ne bu ko génnoon nga ne ay moo wax lii. fekk man ak moom a ko seq. c'est ça da ngeen ko seq. waaw te waxtaan dafa am fu mu commencé sax ba tax loolu am. mais dañuy jël la ca compré euh, dagg moom dagg daal di dugal bu ko defee. ñu léegi yow mhm. xam nga fi wax jooju egg munoo dem fu nekk naan du man du man da ngay. da ngay obligé demaat ci net ba tamit tontuwaat mu nekkaat réplique. moo def li xaaram indil la beneen audio nga may ko bunt. Mhm. mu génnee beneen. Mhm. nga naan bii noonu li la ñu mu génnewaat beneen. c'est ça gars yi bu noppi waaye lañ la wax fekk ne yéen ñaar la woon xaritoo moom mu weer la ci mbooloo te lépp lépp li koy indi mooy jalousie wala rancune tegaate bët bi waaw kay tegaate bët itam mu ngi ci xëy rek bëgg a yàq nit daal mu vie privée yi ñu étalé boo nekkee personnalité bu fekkee sax nekkoo personnalité mais nit ku munti doon rek mhm. pour man dafa am foo war a yem mhm. ak nit ki lu mu nekk nekk sa waaye lu mu nekk nekk sa xarit. Mhm. bu waxtaan bi neex rek. Mhm. ba nga joxe say yenn secret wala ngay ngay ngay waxtaan bi kii. il faut nga am foo yem daal ak nit ki parce que on ne sait jamais. <coughs> Euh, yàgg na xew. Mhm. xëy na peut-être internet bi moo bëri. mais quand même yàqante bi yàgg na yàgg na yàgg na xew. wala boog nga wax sa secret kii ëllëg mu dem wax ko kële. wala kenn ñëw ci yow lëñ bët lëñ bët li ngay def. ëllëg mu xëy yóbbul ko kële. loolu lu fi yàgg la. mais xëy na internet bi dafa daf ko gën a daf ko gën a fësal mhm. mais euh, daan na am mhm. par exemple tey ay nit wax ba pare euh, sumb ñëw teg dara mhm. nga jékki-jékki dégg waxtaan bi feneen waaw wala nga jékki-jékki di xuloo kenn koo xam ne ni tey musu leen séq loolu noonu mu ne la yow de lii. Mm-hmm. nga ne mais lii lan moo ko génne. waaw donc loolu lu amoon la. Mm-hmm. mais internet bi dafa ñëw nekkaat beneen beneen beneen affaire boo xam tey dafa am. internet bi parfois dina am tamit ay frustré. Mm-hmm. yoo xam tamit dañuy dem ba. dootuñu am fenn fu ñuy waxee. dinañ dinañ dinañ am quoi par exemple tey. xoññal leen leen leen xoññal leen leen fenn. Mhm. xaj nañ leen seen àq ak seen yelleef fenn. Ah. ñu dem ba amatuñu fenn fu ñu ko jooyee. Mhm. ñu ñëw nekk ay frustré ñëw wax. Mhm. foofu noonu loolu beneen cas la. mais kantaa nga wax ak nit par exemple tey dara. Ah. mu jékki-jékki ngeen xuloo nga jël affaire bi yóbbu ko ci internet bi yooyu noonu. Ah. pour pour man yëfu bassesse la quoi. waaw ah, bassesse la kay yëfu bassesse yëfu bassesse trop la. Mm-hmm, mm-hmm. xuloo daal. Mm-hmm. jàkk boo leen jàkkaarlooy. wax leen li ngeen wa war a waxante. après mu jeex mu yem fa si de suite mais aussi léegi da ngay gis que ne xuloo yi dafay dafay kii quoi ci ci stat yi. waaw si. da ngay gis ci tiktok yi sax da koy gis. fépp da ngay gis kenn ñëw par exemple tey. li muy wax. utiliser chanson yi. Mhm. te loolu ci biir kër yi la daan ama uh-huh. da ngay xëy ñaari wujju dañ doon xuloo wala ñaari kii bu ñu xëyee seet benn woy boo. xam ne day mun a tontu day gaaruwaale daal def bu ñu xëyee rek woy ba uh-huh. Uh-huh. woy wa moom la ñuy teg. waaw naan benn léeg du ma ko toog benn di ko woyantoo <laughs> ainsi de suite mais ku doon bale di ko woyantoo bu amee statut. mais am way wa bu du ko jël estati ko teg ko leer ne kooku ameem la dina ko dégg. c'est mm-hmm. mais loolu moo tax ma ne la affaire yi nii. gars dañ naan dafa jóg mais lu yàgg la fii. Mm-hmm. mais nag mm-hmm. autorité étatique bi tamit dañ ciy hmm? gis ñu naan la boojo boojo autorité étatique yi de. waaw affaire yooyu ñoom ñëpp ñëpp seen bàyyi ñëw na ñëpp xam nga <laughs> ñëpp. li ñëpp defante léegi te itam boo xoolee boo xool li ko gën a favoriser. mënoon nañ ko éradiquer. bu fekkoon par exemple suñu woykat yu baax yi. Hmm. ñoom Youssou Ndour. Hmm. Baaba Maal ñu noonu kii woon na ko Omar Pène toppoon nañ seen tànk xale yi. Ah, mais ñoom ñoo ko gën a. accentuer ñoo naan la mooy defante rek la ñuy. son bi son wu TikTok la. Hmm. xam nga son bi son wu buzz la. son boobu li nga ko waxee noonu lay demee. da nga koy TikTok taxaw gaaruwaale say kii. waaw maa moom guerre bi. waaw maa moom guerre bi bàyyi ma guerre beeg ndax moom moom xam nga sama sama sama lépp la quoi. xam nga moom laa mën a jël exemple teg ko. ma ma ma jaay ma guerre bi. nga ñëw ñu ne la man ko luy jaay guerre beeg yooyu quoi mu ne ma diggante awo yeeg yooyu maam moom fii kenn ma fekk duma fi déjjati mhm. wala yu ni mel ma ne ko loolu c'est normal loolu mhm. tendance la ci biir Sénégal mhm. mais ñël kii naan ko yàqante de rek yaa ma def lii ak yaa ma def lee waykat bi woy ko xam nga nga jël ko reprendre ko am na benn way tamit boo xam ne nice côté positif lay waxee. Mhm. yooyu moom boo ko jëlee di ko tendance dëgg kër nga koy defee. Mhm. sëy ci naa si kër gi mos ma fay indi. histoire xam nga daal di koor parfois di nga jël baatu dëgg sax di ko gaaruwaale. li li li baatu dëgg. Mhm. te boobu te boobu moo gën a <laughs> garaaw. waaw moom la sey naa Alioune doon wax. ñoom oustaz Gora su ma juumul. kalimatu xaqin bi bihal baatal boobu moo gën a garaaw. maanaam koo xam ne dafay jël baatu dëgg. dëgg lay nekk de. pour écraser nit. te li muy maanaam day jël baatu dëgg. Mm-hmm. dafa dem ba dëgg bi dëgg la de. da koy utiliser da koy utiliser mais mm-hmm. li tax mu utiliser baat bi du pour par exemple tey jàngale de. mais daf koy utiliser pour écraser nit. Mm-hmm. yooyu noonu nag ku ko boobu boobu moo gën a jafe xàmmee. mais beneen bi si des moom mooy mooy li may wax rek tout le temps même parfois si biir ngénte yi sax da koy gis. ñun ay ci société bi lañu dañuy observer. parfois da ngay gis que ne. kii day xewle kii xewle ñaari wujju poccergo yi xewle wala boog par exemple tey ñi njëkk yi wala boog ñu war a mhm. euh, yebbe mhm. ñu war a yebbilante mhm. yooyu fooy foofu sax da nga fay gis violence da ngay gis ñii ñëw ànd ak goro bi ñii ñëw ànd ak yaay ji bu ñuy ñëw xoolal def seen man dama yegg si na. def maanaam comme mbër muy. gàddu bagage yi kuy maanaam ñam yegg si na. waa ji ñëw tagalu ay kéem wër ko sama mbokk ndeysaan géwél yi wër ko. wër ko bu ko defee kee taxaw. waaw kee taxaw defante bi noonu xam nga. Mm-hmm. léegi ci biir defante boobu da ngay ba gis que ni tuut tuutal parce que ñoo ña fa toogoon yëpp bu ñëwee. Mm-hmm. bu ñëwee xam nga la ñuy def. <laughs> démb di li ko goro bi def. xaw na koo rek dafa waa yebbi la du daf kee lay ndeysaan amul di def fay mu fay ko. ba ceeb bi brosse à dents da laa xas non non billaay wala juste lay bëgg a wax daf lay bëgg a wax que ne mën na la yebbil ba yebbil la yi nga xam ne ni tey c'est banal cent francs lay keneen ki ci des bu ko mhm. defee moom bëgg na la yebbil mhm. day yebbi yebbi bu yebbee ba amul lu mu am mais ñeneen mhm. ci seen bopp bu ñu demee xam nga la ñuy wax diw mii kat yebbil na ko mais kee de def na ko lii kii def mais loolu forme de violence la moo tax gis nga man moo tax benn kilifa bu mag doon wax ne aada. dina lekk nit. dina dina maanaam dana. Hmm. def di Sénégal fii diine du fi daan aada. ta kii rek la ñuy def ay affaire aada chaque jour moo fi daan diine. même diine sax boo ko boolewul ak aada du dem. te gis nga fu mu nekk nii loolu nag il faut gars yi euh, jéem ci fippu génn ci. càlle diis weeru koor bi di ñëw nii. Mhm. ñuy waajal lu ñuy wax. Euh, sukkaru koor sukkaru mhm. koor bu njëkk bët. teraanga la woon rek. Mhm. nga yóbbul say suukar say tàndarma say kii mais fu mu nekk nii am na jigéen yoo xam ne lekkatuñu naanatuñu nelawatuñu ndax di xalaat suukaru koor léegi suukaru koor xam nga lan la. Mhm. ay tissus de valeur lay. ngay ngay yebbi say goro ay mhm. joxe xaalis def sa teraanga boo xamante ne nii léegi yow sa wucci peccorgo bi nekk ci kër gi. te amam am amam damay demeewul noonu. kooku yaa ngi koy teg stress. mais pourquoi ñu bëgg a changer loo xamante ne dañ ci jublu woon lu dul defar diggante yi. yéen la jigéen ñi ñu bëgg. loolu la man en fait jigéen ñi rek ñooy def jigéen ñi la. jigéen ñi la te ñun ñun xamuñu tal dog jot na ñun ñun dogu. te yéen parfois seen poche dem. parce que day ñëw ne la jox ma lii dama war a damay damay damay teraanga damay doxee teraanga góor bu ñu ko bisalee ici repose wàcc jaanam wàcc na <laughs> parce que se repose li nga wax si xew yi tamit càlle li da ngay gis koo xam ne waxal rek aawa la waaw di ngénte ñaareelam ñëw sañse ba ñu foog ne ba bongomaan yi jaawale Mhm. kii ngénte ak ki nga xamante ne moom dafa ñëw baa ngi noonu nag ñëw sañse loo xamante ne borom xel bi sax sañse wu mais pour lan jigéen ñi rek ñoo yàq seen moromu jigéen mais góor ñi amuñu problème boobu mais problème bi mooy Sénégal ci boppam ñoo war a bàyyi xew te liggéey c'est ça day liggéey dañoo ñeme dañoo ñeme pour yàq daal dañoo ñeme yàq réew mi lépp a ngi fi mhm. réew mi tey par exemple tey li ñu tardé lu bëri mhm. bokk na ci xew yi c'est ça ku nekk bëgg nga taxaw dën dóor sa dëna ne mën te te te li ngay xew yëpp bu bu bu am na noo doon économiser sa say doom ëllëg du ñu sonn loolu mooy dëgg loolu la ñu war a wax mais imaginez te man Sénégal pour man dañoo dof de lii ab ab nattu la yow daal da ngay yàq di kontaan dina yàq gi ci nga yëkkatee ko yëfi dof yëfi dof dëgg man daal yëfi dof dëgg dong laa gis loolu nag la dañee ba nit ñi xam ne lii nu yàq nii war nañ koo mën a économiser hmm. def ci seen i ay njaboot hmm. ñu bëri ñoo tardeel seen i ay njaboot ci ay détails hmm. te danga ko te xam nga lan nga ciy am ba ma fa xewee. Hmm. ba ma fa dajeeg nga nekk benn waay boo xam ne moom. Hmm. yow yaa ngi doon am 100 moom muy am juróomi dërëm. Hmm. yow nga yàq nga jékki-jékki mu tax taxaw lu taxaw fekk ba nga yàq moom da doon defar loolu dong la. Ah, te boo demee ba justice. lii mhm. dafay bëri. Mhm. parce que da gis koo xam day dem këppi kees. kii dem lebi loo xam ne àttan ko. Mhm. kii yaayam xoolal par exemple. Euh, cas boobu noonu kooku demoon fekki transfert d'argent di jam xale bu jigéen bi laa loolu pour affaire de xew deux millions njëkk naa am deux millions élève mm-hmm. mu doylu ko mm-hmm. doylu ko mu demaat rey koo xam ne mbëggeelu keneen la pour mm-hmm. teral sa mbëggeel yow yow léegi boo demee ba ci biir léegi boobu kat moo du moom parce moom li ñu ko laaj lu yomb la jigéen teel rayal xar bi tudd sa doom dem sa yoon lu ko ko teg jigéen mais jigéen moo ko yóbbee loolu yëpp jigéen ñi war nañ xoolaat suñu bopp de ñun teg góor ñi non c'est trop c'est excessif faiblesse góor boobu la ñuy utiliser. mais bu ñu xoolee da wax nañu jël mbëggeel te parents yi parents yi. Hmm. di defar sëy yi jàpp ci sëy yi ba ñoo wax ni sëy bi intérêt la. wala yu ni mel ko dafa mel ni waxtu bi waaw waxtu bi mu ngi ñuy euh, dab si ñu bàyyi càlle euh, nga tàggatoo rek. waa ndey ku euh, ma kii Fatima hmm. di wax que ne rek ba altine ak jàmm. Hmm. di bëgg gaa yëpp. gis wàcce ko teree daw dafa ragal jabar ji. déedéet loolu maa leen koy wax tey loolu de sama woy la ah, yàgg naa kaa dégg woy la boo xam ne nii dama ko yenn <laughs> yàlla ragal benn jigéen amu kan góor bu ragalee jabaram wàcc di gërëm madame ci coordination bi di gërëm Uli Mata ci régie bi waaye tamit Penda ci maquillage bi di gërëm sama yaay ci Mbàkke di ko ñaan gudd fan di nuyu téléspectateurs ak auditeur yi di leen jox dig daje lundi incha allah si yeneen euh, buzz show